Euh, Ardo Gningue maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moreau. Ardo ñing nga nekk activiste naka nga euh, lan mooy sa commentaire par rapport ak ak euh, la am ca cour suprême gannaaw bu ñu joxee dëgg encore une fois ki nga xam ni moom mooy maam Mbaye Niang ci affaire diffamation bi naka nga jàngatee mbir mi daan bi nga xam ne dañ ko maintenir même bu fekkente ni am na luñ ci rocc ci tuuti. waaw nekkuma Moreau loolu warul bett kenn ndaxte Ousmane Sonko moom moo taxaw def diffamation def discours daal di diffamer Mame Mbaye Niang yoon daal di tranché daal koy condamné Ousmane Sonko dem ci cour suprême pour que ñu annuler li nga xam ne mooy condamnation bi yoon cour suprême daal di koy diggal la donc loolu jàpp naa ne loolu c'est tout à fait normal du fait que Ousmane Sonko ba mu defee diffamation bi preuve teg ko bi amul leen loo xam te fourni na comme preuve donc dafa diffamé na yoon dal ci kawam loolu rek moom mooy àtte bi. ah léegi euh, loolu mooy àtte bi yow bettu la euh, léegi deux cent millions yi nga xam ne aussi nee nañ daf ko war a jox fay Mame Mbaye Niang euh, est-ce que gisoo ni bari na ci diffamation kese ñu bëgg la fay loo deux cent millions. xam nga Ndeye hmm. ku ñu jiñ ne da milliards. yow ñu jiñ la ko yow vingt neuf vingt neuf milliards yow ñu jiñ la ko yow nga am sa intégrité morale ma cest à nga am sa der koo war a sàmm jàpp naa ne tey bu fekkee ne dañ la jiñ da nga sàcc vingt neuf milliards te la jiñ indiwul benn preuve te loolu jiñ boobu ñu ñu ko jiñ mu mën a yàq si der nit ñi mën la toppee comme sàcc mu ne duñ la ko xool yow nga am famille am say dem doom am say jabar sa yaay nekk fi say njaboot nekk fi ñëpp di dem di jàngi ñaan leen yéen seen bàyyi moo sàcc vingt neuf milliards yaakaar naa ne kooku ku wax loolu soo mënul indi preuve lu buñ la daanee un un milliard ba vingt neuf milliards sax buñ la ko daanee jaadu na parce que yow dundu doomu aadama nga naroon a yàq léegi nag bu fekkee ne yoon daf ko daan daf ko daan pour deux cent millions amende man damaa jàpp ne lu jaadu la ndaxte daf ñuy permettre ëllëg keneen bañ a taxawati ci télé yi ak ci rajo yi di taxaw di di di jiiñ day kuma muróokat sàcc na si réew FM dix milliards wala cinq milliards alors que dara musi alors que mënu ko prouver loolu rek la donc nit moom sooy wax dara day fekk nga mun ko prouver comme su mënoo ko prouver nag moom wax pour yàq deru doomu aadama yooyu kan la dañ ko war a eh, dindi si réew Mhm. est-ce que tey jii kon joxuñ dëgg Ousmane Sonko mi ne woon état bi dina jéem bépp mbébét lépp luy pexe dina ko def pour fexe ba moom du bokk ci élection yi euh, mu mel ni la mu waxoon yëpp mi ngi ñu ngi koy daal di gis parce que jàpp nañ ni daan bi euh, dina tere Ousmane Sonko bokk même bu fekkente ni ñeneen ñi sax ñu ngi gisee beneen côté. waaw xam nga loolu dégg naa ko dégg nga loolu. kii di ko wax si di ko di wax naan. procès bi procès complot gis nga il faut qu'on arrête il faut que ñu bu ñu bàyyi ñu defee seen tuuxi dina ba noppi taxaw naan ay état bi la Ousmane Sonko ba muy def conférence de presse di jiñ Mame Mbaye Niang vingt neuf milliards état bi waxul wax ko mu wax ko état bi wax ko Ousmane Sonko moom moo waxal boppam yu dëkk bi nag dëkk yoon la dañoo am suñuy code am suñu ay loi lépp loo xam te yoon maylu ko soo ko defee yoon day dal sa kaw donc mënuñu dañuy def ay infraction di def ay délit ba noppi bu la yoon daal bu yoon daal daal si kaw ba pare nga naan ay non e, état bi dañ ma bëgg a éliminer moom ma nekk candidat non nañu bàyyi loolu kenn ku nekk na nga responsable ci at loolu mooy dëkk Mhm. Euh, Ardo Gningue ñu wax aussi ci euh, chance bi nga xam ne jigéen ñi war nañ ko am euh, pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre bi naka nga gisee participation jigéen ñi. bon de toute façon rafetlu naa ko di aussi di féliciter Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom ku jar a féliciter la parce que daanaka def na le tour def nañu tournée nationale et internationale. donc wër na réew mi ak bitim réew mi loolu dañ koy félicité bu ba a baax a baax te loolu aussi moo ko may résultat yi nga xam ne tey jàlloon na si parrainage alors que ay kàngam yu bëri dañu leen téye si parrainage donc loolu félicitation ñu ngi félicité bu ba a baax Anta Baba Ngom moom waaye nag jàll parrainage taxul nga nekk président waaw loolu lu jar lu jar jar bàyyi xel la hmm. waaw parce que élection présidentielle lañ jëm enjeu yi c'est pour être nekk président de la république du Sénégal. Mhm. loolu yeneen réalité la yeneen affaire la. Mhm. léegi euh, jigéen ñi ñoo amul capacité jiite Sénégal wala sénégalais yi ñoo pareegul jiital euh, jigéen. non xam nga jigéen soo nee amul capacité pour jiite réew donc loolu dama naan la man en loolu duma ko wax parce que jigéen ñi daanaka fi ñu nii euh, xam-xam. yóbbu ji góor ñi yóbbul ñu leen dara si wàllum xam capacité am nañ ko waaye tey Sénégal si boppam ñoo pareegul pour fal jigéen mu nekk présidente de la République du Sénégal te aussi jigéen aussi pareeguñu pour être président de la République du Sénégal parce que lu mu war dëkk lépp ah des na am benn appareil politique boo xam te ni duré na. am nga euh, am nga des cellules am nga des coordination partout dans le Sénégal nga mën a am benn base bu solide boo xam te ne tey moom mën a porter sa candidature loolu nag des na waaye nag am benn quarante six mille voix wala outil ji ay million de voix deux mois deux million trois millions de voix loolu <laughs> bokkul quarante cinq mille quarante cinq mille voix yi nga xam te ne jàll nga ci parrainage bu fekkee ne moom nga moom lañ jàpp ne nit ki mën na ci atteindre pour être président du Sénégal wala ñu wax waxu compétence du si autre chose affaire du wàllum compétence affaire bu c'est politique politique la waaw gis am na ñoo xam mooy dàq jàng fuuf mm. waaye politique du loolu politique mm. dafa laaj appareil dafa mm. laaj jukki dafa laaj jigéen ñi taxawaguñ cent pour cent si côté pour jiite Euh, ñu wax un parce que gis nañ njiitu réew Sénégal makisal mi ngi ñaax premier ministre bi def benn euh, bilan rapport en fait euh, si réalisation yi nga xam ni def na ko ci fukki at ak ñaar yi mu jiite Sénégal yow si sa gis-gis naka nga gisee bilan président Macky Sall muy bilan matériel ak immatériel. fekkee ne bilan matériel bi la infrastructure lu président Macky def si réew si fukki at ak ñaar yi fi nekk benn président musu def Sénégal te amul benn président bu ko def ci Afrique le président Macky Sall le meilleur président du Sénégal et même je peux dire il est le meilleur président de l'Afrique actuellement si ay résultat résultats am le président Macky si douze ans jël na Sénégal def ko benn un pays industriel liñ pays yi nga xam ñoo nekk si Afrique de l'Ouest nee nañu suñu réew mi Sénégal moo jël première position moo jiitu si wàllu industrialisation si pays yi nga xam ne ñu nekk si ba pare jël juróom place si yi nga xam ne ñoo nekk si Afrique yëpp te loolu exploit la amaan loolu bu amee tey dafa am ay réalisation yu bëri xam am na am na aussi ay coopération yu am dëkk bi industrialisation macha allah léegi nag lu jël si wàllu infrastructure gis nañ pont yi gis nañ tëli gis nañ goudron yi piste yi ah gis euh, infrastructure euh, nga dem jam ñaajo euh, ila tubaay c'est-à-dire que il faut que ñu xam ne suñu réew moo ngi avancé tey am na ñoo xam ne tey gaañu nañ depuis deux mille dix tey bu ñu soo leen yeewoon seen bàmmeel dugaleen si réew mi amaana mën nañoo réer parce que nga dem si fond fond du Sénégal man dund na expérience boobu côté Tambacounda donc da nga daan dem oto yi dañ naan fioloo bu ñuy bu ñuy daw ndax ay kàmb mais ba ma fa demee en deux mille vingt no dama li lii c'est pas possible tëli bi nekk Dakar moom ngay jaar dem Tambacounda bu dugg Vélingara Kolda mais loolu am na ñoo xam bu ñu leen ko waxoon lañu naan lii c'est impossible parce que calvaire la amul benn semaine wala benn deux jours boo xam te ne nii choc daan foon accident daan foon am donc loolu ay réalisation la yoo xamante ni président Macky Sall def na ko moo tax président Macky Sall aussi kenn mënu koo jam si wàllum infrastructure xëy ngay dem stade Abdoulaye Wade nga nekk fa di seetaan match nga yaakaar ne yaa ngi Europe waaw loolu ku fay dem xam na loolu nga dugg si teer bi noonu nga dugg si BRT bi noonu donc macha allah le président Macky Sall volet infrastructure ak lu jëm si bilan matériel moom amul kenn ko xam te mën na ko si jam ci côté boobu. Mhm. mais si côté euh, démocratie ñu bari dañu jàpp ne lépp lu maître Wade liggéeyoon euh, kile nag di euh, euh, président Sall daf ko gàkkal ndax euh, détenu politique yi bari nañ arrestation yi ñi nga xam ne dañ doon joxe seen xalaat rek ñu tëj leen aussi bari nañ rawatina manifestation yi nga xam ni saa su nekk dañ koy tere si reñu président Macky Sall ñu jàpp ni gàkkal na bu baax euh, bilan bi si côté boobu. xam nga Ndeye Comoro foog ñu waxante dëgg benn instant man mii di wax ak yow subir naa injustice si gouvernement wu si régime mu Macky waaye foog ñu xam benn affaire réew démocratie. suñu réew mi bu ñuy wax si wàllum démocratie le président Ablaye Wade li fi bàyyi woon instant yi bu Ablaye Wade bu yaratum réew mi bi nga xam ne le président Macky Sall jàmbaar la ci wàllum démocratie xam nga fa la lu tax moo la ko tey président Macky Sall Ablaye ñaata rajo la fekkoon ak ñaata rajo la fi mujjee bàyyi ak ñaata réseaux sociaux chaîne en ligne ak ñaata moo fi toll ñaata ñoo fi ne actuellement nit ñi sañ-sañ bi ñu am actuellement di ko wax si télé yi di ko wax si rajo yi kenn kan est-ce que mus nga dégg rek si Sénégal waxuma la sax Sénégal Afrique ba mu daj ban pays ngay toog si plateau télévisé di wax naan ay buñ deful naan coup d'état mën na fi am état mën na jël ay te dara du si fekk nga dem ñibbi seen kër tranquillement loolu démocratie na mais ça il faut que ñu faut ñu waxante dëgg réew mi mën nañ ne démocratie cent pour cent amu fii mun nañ wax ne justice cent pour cent amu fi te loolu pratiquement amul benn réew si àdduna bi amul fan am amul parce que justice ni koy commandé son des ay nit lañ comme man comme yow te nous sommes tous imparfaits donc ñun comme nous sommes des personnes imparfaites donc ñun mënuñu incarner ay justice justice ba pare ba bëgg justice bi dafay par dafay parfait loolu c'est impossible mais nag wàllum démocratie war dëgg fa ne yàlla réew mi sant yow Ndeye Coumba mm-hmm. Ndeye Coumba yaa ngi wax sa xalaat mm-hmm. yaa ngi sere yaa ngi invité ay nit mm-hmm. ñu dara du ci am na loo xam te nag moom kenn du ko toléré si ab réew mooy extrémisme ak di wàllum taxaw di woote ka leen génn xeex yooyu noon soo koy def da ngay assumer say responsabilité mu leer na lii am na lu si mën a dama ko doon def am lu mu si doon fekk dama ko doon assumer parce que dama xam ne lii carrément kat yoon suñu yoonu réew da koy aye mais munoo ne carrément pays démocratie la nekk ba pare loolu nga ne lu neex lay wax lu ma neex lay def dara du ma donc même su nekkee da nga nekk si pays bu démocrate am nañu yoon justice baa ngi te justice boobu noonu dafay nekk pour encadrer li nga xam ne tey moom mooy ay droit yu ñu am. Hmm. donc justice bi fa amuloon kon kay réew maa rëddaal te justice te démocratie munoo ko wax tant que justice bi taxawul fokk justice bi taxaw léegi nag. problème de justice moom am na ci réew. Mhm. parce que dañuy gis di wax ay tuuxu dina dara du leen sekk nga bi loo wax ñu tëq sëriñ loolu noonu amaana mën nañ ko déplorer a baax. Mhm. am na ñoo xam te ñoo ngi ci opposition bi di wax lu neex di wax ay tuuxu dina dara du leen sekk waaw xëy na na changement mooy commencé am. waaw mais am na ñoo xam ñoo ngi si opposition bi dañu leen neex di taxaw di menacer un chef de l'État taxaw di woote ay manifestation ay nit di si ñàkk seen bakkan te dara daa si fekk waaw te loolu tamit dañ koy déployer. Hmm. waaw euh, donc loolu fekk. Mhm. waaw waaw waaw euh, question rek di la laaj si dund gu cher gi parce que yow dañ léegi souvent nga yëngatu si wàllu mbay. Euh, hmm. dund gu cher gi sénégalais yi di dund pour yow lan moo si solution parce que fi ñu toll nii prix yi jéggi na dayoo. waaw dund gu cher gi moom lenn rek mooy solution bi mooy que ne ñu dem bàyyi kase état du Sénégal jël ay moyens def ko ci agriculture def ko ci budget de l'agriculture parce que Sénégal su dee xool le budget de l'agriculture ça fait cent vingt milliards xawma sur un budget de sept mille milliards mënuñu jël sax benn cinq pour cent wala dix pour cent ñu yóbbu ko ci agriculture ba pare ñu dañoo bëgg autosuffisance alimentaire donc loolu mun àndul c'est c'est pas possible loolu défi la boo xam ne tey il faut que ñu ñu relever ko tey tan que état du Sénégal jëlul budget bu kii alal ju takku def ko si mbay mi jël sëriñ si dugal seen loxo taalibe yi dem dugg ci tool yi ñu dem bay ji tey toujours dañuy dépendant autosuffisance alimentaire mun naa ne mun naa ne si kaw ñun en tant que jeune jeunesse bi fi nekk ñun ñu orienté leen état bi orienté leen si mbay mi utal leen salaire yu baax xali leen yoon yi xali leen tool yi ñu dem mbay ji ji xam ne xaay borom àll yi dëkk ñoo war a nekk baykat yi mais pas ñu nekk si bureau yi pas ñu nekk si état bi si ministère yi ñoom seen non non borom baykat yi ñoo war a nekk borom àlalul réew mi waaw képp kuy bay si parce que loolu mooy loolu moo tax jeunesse bi mën a am motivation pour dem di bay mais da ngay bay di gën a sonn mais da ngay béy doo si am doo si am dara banque yi di la bëgg a rey donc loolu doo motivation te nit ñi bu ñu béyu dund gi day cher autosuffisance alimentaire du fi am donc foog nit ñi dem bay ji bu ñu béyiwul bu ñu béyiwul dinañ ko dañ koy regretter actuellement dinañ ko regretter hmm. waaw ndaxte dund gi lu muy cher nii yëpp suuf saa ngi fi àll baa ngi fi nañ état yu jël ay moyens terrasser àll bi jeunesse bi dem bay dem sëriñ si dem yóbbu si seen seen si tool yi ñu encadré ko xëy def ko si mbay mi xale yi defal leen ay salaire yu baax mbay loolu mooy fulla loolu mooy dëkk. voilà merci beaucoup euh, Ardo Gningue ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf Ndeye Comba. voilà Ardo Gningue ñuy fàttali ne activiste nga en tout cas ñu ngi lay remercier si euh, disponibilité bi jërëjëf. disponibilité bi jërëjëf. disponibilité bi.